teewlu la ak ñun waxuñ yooyu mm-hmm. waaw aco mooy noonu bu ñu paree nañ nga xam ne moom mooy nekk Sidi Diop gannaaw ma fàttali la samay wax bu ko kenn juutal moom moom kenn juutal nay leer rek wax yow wax kam wax sa juré si dëkk bi le 21 mm. ala baadoola como juddu wu ci pénd bay tey boobu la après da ngay def suuf man ndax mun ko wax parce que boo yuuxu ma dama mën a yuuxu te le 21 le 21 ala baadoola ala baadoola Coomo juddu wu ci Coomo juddu fi. Penda Bay Penda Bay voilà. madame Diop madame Diop ñaareel xaritu jëkkëram. voilà coow du jib coow du jib alors parlons de Sidi Diop nga xam ne nii moom tamit euh, gannaaw bu mu génnee prison c'est la première fois mu génn wax situation yi nga xam ne nii dund na ko bi prison dem na ba ñuy wax ne raconte dañuy raconté li nga xam ne nii moo nekk. premier jour si bi prison méttit bi nga xam ne moo ko fa doon dund alors bi ne si c'est nga xam ne ni moo nekk Sidi Diop daal di ñëwaat si bi leader 5 étoiles. ci loo xamul ko waaw parce que nag xaw ma woon loolu. sama téléphone laa doon yor. wala ma yor sama Netflix. nga xëy benn guddi ñu nangu lépp. sàqal la heure bi ngay tëdd. ne la 18 heures ngay tëdd. koo xam ne peut-être sax 18 la daan yeewu. tàngal kafem toog sa wetu yaay sa wetu rakk. Mhm. ñu defaral la sa añ nga añ. Mhm. ay jékki fu ngeen nekk papa fu ngeen nekk gars yi. Mhm. ñu daje waxtaan. fadam foo ne mu ne la maa ngi sekkee ci xoolal loolu ni mu neexee. nga taal soo dem sekkee ci def sa dibi lekk. 18 heures ñu tëj la. ne la suba ngay génnaat 6 nga bëgg loo wéttali ko doo ko am. nga bëgg téléphoné sa yaay mbaa sa papa doo ko am. nga gémmantoog ñàkk gémmant da dugg tëdd. nga gis fa nga laaj nit mu ne la man def naa fi huit mois. Mhm. kii ne la def naa fi sept ans. Mhm. kii ne daal def naa fi cinq ans. ma xam ne man est ce que bu ma màggali woon yàlla mënul def ma des ci yoon bi. oui. Mm. Mhm. dëgg bu ma demoon màggali bay ñëw yàlla mënu woon def des ci yoon bi. te yaa ngi doon programme màggali. te maa ngi doon programme màggali waaye nag ci moment bi ma dal dama cee sant xam ma lu tax. man sama tolof tolof ci safar la ma dal. te ku ne xam ne safar weeru yërmande la. ndaxte ci la Serigne Touba jóge ci géej gi. Mm-hmm. lépp lu mu am tey. weer woowu la ko amee mm-hmm. ndax ci la toogee di xaaraat nattu yi. Mm-hmm. yàlla ne ko nattu dootuma la ko teg jeex na. nattu yi jeex na. sëriñ Touba ne bis ni tey bis bi heure bu jotatee na ngeen may santale suñu borom. na ngeen may santale suñu borom. moo tax man bi ma xoolee mu nekk période màggal ñu ne ginnaaw suba la màggal. suñu borom dugal ma foofu. damaa sant suñu borom jour màggal foofu laa màggale booy xëy di jàng xasida di bàq xiini di sikkar nga fay gis ay góor yàlla gars yi di ko jaayante ma gis fa ay nit yu baax wóor na Cheikhul Khadim Fadam ay nit yu baax donc may lancé waat benn appel mooy boo yi nga xam ne dañu fa nekk ba ñu fàtte leen longue détention yi man fii di peut-être mën naa am benn DJ Yves mën naa am benn Fadam 2 mhm. mën naa am benn Iba Seye mhm. mën naa am benn maxtaat jub suba teel. Mhm. mën naa am mën naa am mën naa am mën naa am. Mhm. mais am na tey ji koo xam ni amul sax ko ko indil añ. amul ko ko indil reer. Mhm. te ma nga fay bëgg a yàgg. donc may ñaan gars yi booy yi nga xam ne dañu fa nekk yàgg fa te ñu fàtte leen. ñu àtte leen. booy dem seen longue détention yi ak mandat dépôt bokk na ci li ma ci gën a benn booy boo xam ni xam naa erreur rek fa dem. booy bi dafa toog. di wuy téléphone parloir mhm. may romb mhm. doon wuy sama rak ma romb rek yaayu booy bi ni ma ci loo xamul quoi waaw parce que nag xaw ma woon loolu mhm. sama téléphone laa doon yor wala ma yor sama Netflix nga xëy benn guddi ñu nangu lépp sàqal la heure bi ngay tëdd ne la a ngay tëdd koo xam ne peut-être sax dix la daan yeewu tàngal kafem toog sa wetu yaay sa wetu rakk. Mhm. ñu defaral la sa añ nga añ. ay géej fu ngeen nekk papa fu ngeen nekk. alors moom noonu kàddu yi nga xam ni kii di Sidy Diop yëkkandi mu nekk ay kàddu yoo xam ne daw yaram la Yolande Gomis comment tu vas. Yolande tey dafa tardé. oh Yolande daa tardé amoon daa tardé daa tardé <laughs> alors merci beaucoup alors ñu ngi koy ñu ngi bu baax a baax nga ni Penda Bay tey lan le 21. ma allah baadoolo como judduwu ci pende bay pende bay alors Ous euh, mu mel ni euh, kii di euh, Sidi Diop prison jàngal ne ko lu bëri parce que tamit boo gisee am na benn histoire bu daw yaram muy raconté si biir prison bi benn waa ji nga xam ne nii moom tamit moom ngi fa mhm. waaye comme ni koy waxee rek ndogal yàlla moo fa dugal maanaam li ko dugal du coobareem fu mu nekkoon lañ ko fekk ak ñeen ñi nga xam ne daal di jël yóbbu ci biir prison ba yaayam di def ay témoignage bu baax a baax si moom donc ça veut dire que prison comme ni koy waxee rek am na ñu fa nekk pourtant defuñ dara. Mm-hmm. ñu dugalee fa léegi léegi yow noo ko jàngatee. léegi tey yow laa posé question bi noo ko jàngatee. na laa jàngatee loolu si wax di kàddoom gi waaw si kàddoom gi. waaw ça veut dire que euh, kàddu ban kàddu mooy si. mooy ci li mu wax yëpp. tënk ko si mu tënk yëpp yëpp yëpp. tënk waaw ndogal la. waaw noo ko jàngatee yow boo doon comme ma posé la question ne la. voilà ko man nag xam nga j'ai envie trop de poser des questions j'ai pas envie de répondre mais aujourd'hui je vais essayer je vais essayer vas-y poser question bi nag comme ni may posé nag ndax a xamaat ni muy waaw ma ne la ah. tey bi sii di waxee ba pare mhm. nii expliquer lii moomoo loo yëg lu ma yëg mooy yërmande si moom mhm. waaye tamit gëm yàlla bi mu gëm yàlla macha allah parce que dafa jël si référence yi nga xam ne nii mooy Cheikh Ahmadou Bamba si nga xam ne moom la yaakaar mhm. moom heure instant yu ngi ko denc instant yooyu na ko yàlla waxoon ne carrément yow tegg naa lépp li nga xam mooy nattu mm-hmm. donc yàlla bu ko si teree nattu loolu sant yàlla la mm-hmm. waaye dafa doon li nga xam ne nii peut-être ala kulli àll yàlla moo xoon moom dina fa jaar mm-hmm. te prison ñu baax nga fa ñu bon fa donc lu baax la loolu nga ci jàngat loolu laa macha allah léegi nag sama jàngat baax na moom moom waaye waa sa jàngat baax na <laughs> yaa yaa yaa mën a yaa mën a jàngat. voilà euh, léegi yow sa jàngat laa soxla sa jàngat original bi xam nga loolu dafa am copie ak original. jox naa la sama copie. xam nga lu ma ci jàngat. Mhm. maanaam kuñ ne bisu penc am na nga war koo gëm. Mhm. ne dee ku nekk ci caaxaan war nga xam ni dëgg-dëgg day am. dégg nga fi mu tàmbalee. Mhm. dafa am lu ma doon def. su ma daan yeewu sax dix-huit heures pare naan sama café mhm. dem see boucher sax commandé di bi léegi mënatoo ko dix-sept heures lañ la naan tëddi ndem nit mooy am pouvoir di la commandé asma yàlla suñu borom wallaay nit nit dem doomu aadama ni yow mhm. nga saxle mu saxle nga gudd guddule mu guddule nga yor nopp mu yor nopp naan la tëdd ngay tëdd jugal ngay jug. amaana ko bu la fekkoon sa kër mun laa wax ne jugal boo ko nga rey ko. moo tax moom ku ne ram it amul ndax nga sa bopp. yow nit ñi heureusement. maanaam na nit ñi di bàyyi xel lu bëri xam nga mooy bébé saalum loolu mu doon wax. Mhm. yàlla xarit ba kat lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate mu doon ku nuy baal. Abdou Sall lu ma xew nuy wax la man ak lu may dégg ngeen ngeen wax la mais xaw ma. Eh, xam nga loolu kan a ko bind. Serigne hmm, hmm. du ay waxam de dafa am olofal bu tudd nattoo di kerkeraani al awliyaay. boo déggee Serigne Moussa Ka bi muy bi dafa ne nattoo di kerkeraani al awliyaay ku ko weddi laaj ko xayru lan bi yaay kan ay lan bi yaay yonent mu wax la yonent nattu yi mu aw ba pare nag doog laa teg ne yonent yi. yonent yi nga xamante ni dañ daan góom seen yaram te yàlla naan leen boo ko fompee wala dara laal ci nga ma rocc la yonent daw ba dugg ci garab yàlla yebal Jibril ne ko nañ taawi garab yi ñu xaaj garab yi nga dugg mu bàyyi fa sa catu yére ay seytaan ñoo ñëw ne catu yére baa ngi nii fii la nekk seytaane nañ nañ nañ ko si ñu si bi ñuy si yonent bi ji di watu yàlla ne bu ay yonent <laughs> ay yonent ñoo daj yooyu ñoom ay yonent laa la wax de ñoo daj yooyu asma ak ñun lu ñuy reew ak a beew ak soof di jaay gat gu rëy ak dijj marine xamul suñu bopp nag ñun ay yonent laa la wax de moomoo waxuma la ay ay ay yonent téere boobu boo ko jàngee moomoo doo ko àggali da ngay jooy waaye nag ci biir wax ji ci la sëñ Musaa wax ba ni yàlla nag xarit ba lay musiba xarit bi xarit ba muy kii xaritam moom lay tegee lay musibaal ngir dara jaal ko. wala yëkkati ko. wala mu doon ku nuy baal. Hmm. man soo mënee teg. moo tax yàlla bu la tegee nattu yi. ñun Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mus nañu ko wax. mu ne yéen li leen yàlla defal su ma leen ko waxoon wala ngeen woon ko wala ngeen dem ba xam ko suba bu ngeen ma woowee da ma naan booy Kara en 2003 ne fii kenn nekku fi yàllaa fi ne dama bëgg ngeen bàyyi loolu xel te gëm seen bopp. cest eh, à ki nga xam ne mooy sëñ Modou Kara man dama am habitude à ma déggee diw diw diw diw il faut ma dem delluwaat si ginnaawam parce que nit nga mën a ngay xaw si ginnaawam pare. pour mhm. mën a xam maanaam tey jii la indi lii. Mhm. dama yaakaar ni nit bu ñëw la maanaam jaar si lu yomb jaar ba ñëw ak si fii ba ma delluwaatee ginnaaw di seetaan si YouTube di gis ay ref ay kii cest à nga xam ne moom ay sikkar yi booy def ndekete moo ne ko dàqoon. si sikkar la doon def. si ay liggéey la doon def. maanaam salaatu na bi Euh, bu taxaw di bind sëñ Tuubaa yi bu koy jàng mhm. toog si kuréel di ko jàng di yuuxu man mosuma xam ne karaamaam jaar na foofu yëpp de quatre-vingts ans ba léegi bu ñu la waxee ay jaar jaar xam nga Sénégal bëgguñ fësal lu baax lu bon lañ bëgg bref ñu jóge foofu sax ndax kilifa te naa naan ay rax ci jëme la sa kanam ñu jóge sax foofu maanaam Sénégal pour te dire moom moom c'est juste une Sénégal bëgguñ lu baax lu bon la ñuy xamal nit tey jii fu ne nii pen de yu baax yi muy def yi def def def def def yi def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp hmm. duñ ko fësal tey bu juumoon benn juum ñëpp xam ko hmm. ñun ñoo mel noonu bëgguñu lu baax ñu di toroxal nit ak lu nit di amee gàcce ñun moonu ñor en général hmm. ci lépp nag ñu ne ko yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate mu doon ku nuy baal moo yàlla bu la tegee nattu yi am na bàkkaar bu mu la évancel wala yu mu la dindil ça c'est sûr yàlla lu mu def rek daa am lu tax. of course te lu mu teg nit attan na. borom kooku kenn la. Mm-hmm. moo tax yii boo ci jaaree par force boo ci jógee nag nga ñàkk jom nañ xam ne mënatoo baax ndax foofu day yare. daara la itamit mun nañ ko ko jàppee. moom la ñu di wax ne si prison fii éduqué la. Mm-hmm. mais du prison Sénégal nii yi fi xew moo tax faa ñu defaraat prison yi. Ah, moom lay wax sax si fin bi ne il faut mu jàppale waat ñi nga xam ne ah, parce que fii da ngay génn cest à fii dañ lay tooñ tëj la sàcckat yaa ngi nii di sol costume di toog ci télé yi mhm. sàcckat yu mag yi ñu war a tëj. alors waaw loolu tamit loolu tamit temps yi ñoo ngi si alors